ci yéen kaay yi Lamine Samba lañ ci àndal ni ki talaata bu jot Lamine maa ngi lay nuyu. ma maa ngi lay soy naka mu sant maa yaa jàmm yow cof nga de yow kii nga bokkaloon université. <laughs> nee na ko vingt ans. université dama mais mais mais mais attends Chérif est-ce que woo sax. ci fête tax de bi muy waa ji nee na vingt ans gisuma la. te université moom ak kere. université. moom moom dafa nekkoon. Euh, mais xaaral non man maay wax non xaaral man maay wax non man maay wax man maa wax man maa posé dama ne dama ne yow xoolal. mais dama leen laaj vingt ans yow. université <laughs> catastrophique. Modou ko gën a nekk jos. bi moom bi ñuy bi ñuy peinture asamaan si yow yaa mélangé couleur yi. yow yaa doon ay non non non mais attendez mais melu vingt ans. li xale yi naan atum belees bi la leen. laa <laughs> ilaaha illallah Serif comme yow nga ne nga ne copp nii rek Serif <laughs> yow. aja léegi nag kaay yeeg l'observateur. aja ndeysaan ñu ngi ñu ngi wax sax. waaye xel yëpp mu ngi dem ci Pape Bouba Diop. ndax picc nga xamante ni moom la bégal sénégalais yi loolu duñ ko fàtte mukk ci àdduna mhm. biñ doon wax ni France daf ñuy waas moom mu dugal but bu rëy boobu nga xamante da cee loo xamante ne mës nañu ko wax ñoom ñaar ci seen néeg bu ñu duggee ci terrain bi loolu suñ borom daf koy euh, matale doomam nittali na ak coacham bi nga nii moom moo ko doon entré entré parrainé euh, série bi nga xamante ni nii moom la ñuy wax infidèle euh, nitil nañ lépp ci biir euh, li nga xamante moom mooy film bu doy waar boobu faux billets yi ñu jàpp mu toll ci benn milliard suñu koppar it l' observateur dikk na ci ak ñun coronavirus bi nga xamante dafa mel ni dafay dellu siwaat ci réew mi nan la def ba dellu siwaat soleil suñu jantub réew wax nañu ko libération yéen dikk ak ñun ci benn mineur boo xamante ni fukki at ak ñeent la am dañ ko jàpp muy def trafic international de drogue lépp ku ko bëgg xam mu ngi ci biir l'observateur ah, mi ngi ci biir libération enquête yéen a kaay dikk ak ñun ci juge Télico nga xamante ni dañ koo blâmer ndax ah, li nga xamante ne moom mooy atte bi ñu ko doon atte dem bu guddoon na waaye blâme la ca mujj jëlee la quotidien yéen a kaay ne procès bu métti dur noonu la ko tuddee mu ne président bu UMS e dañ ko mus mujj blâmer ah, juge kan moom dafa mujj désister pour raison personnelle loolu la ñu le quotidien yéen a kaay xamal Walf quotidien dikk ak ñun ci Euh, minute procès bi ku bëgg a xam nan la procès bi mi meloon ak ni mu mitee woon boo yëree Walf Quotidien di nga ko ci fekk euh, source a dikk ak ñun euh, ci ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy ñoom ñooy jalise jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ ciy am lépp source a dikk na ci ak ñun ko Échos yéenekaay moom it ci noonu la dikkee juge Téliko ak niñ ko blâmé ak bés yu mujj yi nga xamante ni Pape Bouba Diop am na ko ci kaw suuf ni nga xamante ni nii noonu la ko feebar bi tërale woon 2017 ba léegi waa fameem kenn ku nekk nag wax tolloo ci yeeyu loo a kaay moo ñu ko xamal la eh, ko mu toll ci ñaari milliards suñu koppar SS Mbàkke moom dafa daanu ak mille trois cent milliards lépp ci ay faux la loolu la ñu turbine yéen a kaay xamal le Sud Quotidien dikk ak ñun eh, ci eh, ni nga xamante ni nii noonu la ñuy amee ay organisation milice yooyu ñi nga xamante dañuy yor ay gars yu yor ay ngàndaay ak naka noonu naka état bi ni nga xamante ni noonu la ci xaw a sàgganee lépp mi ngi ci biir Sud Quotidien quotidien dikk ak ñun ak ñi nga xamante ni dañu am sida euh, jafe-jafe bi nga xamante ni moom la ñu am laas quotidien dikk na ci ak ñun vox populi dikk ak ñun ci karaam yi nga xamante ni ni gannaaw bu ñu tegee ay loxo ay nit ñu bari ñoo xamante ni dañu jàpp ni euh, ci ay daaraam lañu nekkoon euh, karaa wax na nee na waxloowul kenn bis bu wax jotee moom dina wax te moom bëggoon na dem kaso waaye loolu la ñu vox populi xamal record yéene kaay Sadio Mané la def ne fang ci xëtam bu njëkk mu ne Sadio Mané ak Reds yi suñu gagné dinañ dem ci huitième de finale yi stade quotidien gën ko leeral daal ne Liverpool ak Real bu ñu gañee tey mun nañu qualifié euh, ci huitième de finale Pape Bouba Diop mi génn àdduna it stade ki yéene kaay dikk na ci ak ñun suñu lamb dikk ak ñun ci ñoxo baay borom ayca ayca mi nga xamante ni nii wax na kan mooy Modou Lo roi de arènes mu ne Modou Lo foo ko xool rek dafay dégager li xamante ni moom mooy euh, confiance euh, ba waxoon dikk na faati mu ne mbër bu màggetee grand place sëriñu tariyaax papi général nee na bàyyi na làmb léegi sëriñ la très bien jërëjëf. demoon mu ñaanal la. jërëjëf parce que yaa ngi. jërëjëf jërëjëf Lamine. 7h40 7 <laughs> <laughs> moo jot. wala Modou merci beaucoup. merci beaucoup rendez-vous demain allah Lamine Samba la woon ci li ci yéene kaay yi. Modou Fall dégg naa daa posé de. Modou ah, loolu ma dégg bu ñu kaw yi daal. <laughs> c'est une affaire à suivre. 7 ah. euh, RFM. incha allah Babacar Fall docteur Safiatou Thiam lay dalal. secrétaire exécutif du conseil national de lutte contre le euh,